di ci kontaanee bu baax a baax waaye boobu ba léegi ñu ngi toog ak ay ndaanaan ndax ndaanaan lépp wuy si nañ ko mu doon xale boo xamante ne xale bu yaru la kàddu séedé yëpp doon benn ci moom ma toog see kenn koo xamante ne yaay la ci moom di suñu yaay suñu mama Ndeye Coumba ma bàyyi ko rek mu ndokk mbokk internet yi mama maa ngi lay nuyu bu baax di la kontaanee. maa ngi lay fay bu baax. Mhm. di la ziar macha allah. Mhm. di ziar waa sunu bës bu baax macha allah. Mm-hmm. di ziar téléspectateurs yi ak téléspectatrices yëpp yi nga xam ne ak internautes yi nga xam ne. Mm-hmm. ñooy seetaan ah macha allah ci ñi nga xam ne yéen yéen a yore affaire bi. Mm-hmm. macha allah kontaan nañ bu baax a baax a baax waaye comme ni ma ko waxee rek euh, suñu frère tey am bés bu mel nii ñu gis képp koo xamante ne artiste nga rek tey bàyyi nga si te ñëw ban yëg-yëg nga am tey ci bés bi. waaw tey moom bis bi bis bu bu bu ma naw la. kontaan lool ci bis bi. ndax nag loolu moo tax ma jóge ba cees ñëw. ndax ki nga xam ne mooy Pape ba ñu koy wax Abdou. waaw euh, Abdoulahat. Abdoulahat mhm. Abdoulahat hmm, femme. Mhm. muy xale boo xam ne macha allah danoo bokk projet di ci liggéey. Mhm. man ma jóge ba Thiès ñëw dugg ci projet bi di projet Marodi. muy emprise yàlla def nag dès tout à fait au début. bi ñu démarré moom daf ma won yar. won ma disponibilité. won ma macha allah cofeel cofeel boo xam ne dafa am commencement mais amul fin mais liñ naan rek hasard amul ndekete danaan ma tout le temps daf ma daan wax na ma da ngaa nuroog sama yaay da ngaa nuroog sama yaay bi ma ñëwee ndekete tantaam rakku yaayam maak moom ñoo bokkoon sixième ba troisième eh, escale ex Ousmane Ngom bu Thiès nga xam ne loolu tey moo tax liñ naan rek ànd bu nekk na rafet mm-hmm. su rafetul rek bu ngeen gisee mbaa bu ngeen dajee mhm. ah dina am kenn kurus macha allah mhm. waaw euh, mu doon xale boo xamante ne kàddu yëpp benn la ci moom saa su ne koo ci teqal rek dina la wax yar ak teggin gi ci moom mhm. euh, ban confirmation nga ci dool dolli waaw confirmation bi ma ciy dolli mooy mooy li li ñëpp wax dëgg la mooy yar rek dafa dafa yaru te métier mi mu nekk di ci di ko exercer daf daf ko bëgg da koo bëgg da ko bëgg ci xolam di ci def nag jëmbët fullaam ak faydaam ak jomam Euh, moom bu ñu taalee caméra yi dara caaxaan dootu ko animé te man loolu su ma ko gisee ci xale ñun ñi nga xam ne ay mag lañu yàgg si def ci pa maanaam pa lu mat ëpp 40 ans ñu def ko ci. suñ gisee xale yuy def noonu ñun dañuy xam ne ah wax dëgg yàlla lii de xale yii de bu ñu mujjee puso bi puso bi di réer. parce que ñun loolu moo nu animé ci aar parce que aar dafa nekk loo xam ne nit ñi peut-être que du ñuy wax naan boo léeg-léeg da ngay wax rek ñu ne kii de théâtre rek. wax boobu daa nekk wax bu may choqué. kii de rek kuy kuy fo sax kuy fofee rek sax mu ne hmm. kuy fo di comédie mu ne kii de rek hmm. te aar métier la hmm. xool nga li bureaucrate bi nekkee métier euh, macha allah euh, agent de santé bi nekk métier euh, agent Sénélec bi nekk métier aar tamit métier la métier la te suñu métier mi métier mu ñu naw la ndax bu noble la waaw macha allah Pape nag mi ngi koy def aba mu set bu ànd ak yar ànd diine am na diine nag te man loolu damaa ñor ci xale am na diine trop trop trop trop taalibe Cheikh Amadou Bamba bu wër la man loolu man mën naa ka seedeel macha allah mm-hmm. am solo yoo xamante ne ba tey rek euh, seede lu baax moom du doy ku ñu ci toogal rek dinañu bëgg nga yëkkati kàddu yu mel nii si suñu frère boobu ndax it mbaax rek am solo mhm. bés boo ko jiwee nit rek boo xewlee buñ la ko fayee sa xol dina sedd bu mhm. baax waaye ginnaaw loolu nag yaay sénégalais namoon nañ la nag de gëj mhm. naa gis foo ne man maa fi foo ne. si pourtant maa ngi maa ngi joué maa ngi tourné de. Ah, ñu ngi lay seetaan mais yow yaa làqatu foo ne. <laughs> maa ngi Thiès maa ngi Thiès pourtant maa ngi Dakar pourtant maa ngi Dakar. Mhm. waaw maa ngi maa ngi maa ngi ci projet yi de macha allah. yaa ngi ci projet yi <laughs> waaw maa ngi ci projet yi. Euh, naka nga gisee jamono ji bi ñi nga xamante ne noonu lay développé ci li nga xamante ne moo di liggéey bi. Mm. Euh, yokkute mi nga ciy am ban gis-gis nga ci am ak ban yëg nga ciy dund. waaw waaw fi ne nii euh, boo xoolee ñun tout à fait bi ñuy commencé tout à fait bi na loo xam ne dafa xaw a naxasaay mhm. ah mais xool nañ ne fi mu ne nii léegi ah ah comme rek ni ma ko bëgg a waxee dama koy waxee ne comme euh, Tyson waaw li mu indi ci làmb ji mhm. xam nga Tyson moo indi million yi ci làmb ji waaye nag ak ak ak tamit humble dinaa ko wax ak humble mhm. Sori tamit moo indi millions yi ci téléfilm yi waaw moo ko indi nag waaw mooy série yi série yi te série yi projet yi bëri na léegi te nit ñaa ngi koy euh, liggéey ak fulla ak jom te ñi ngi ñi ngi ñi ngi satisfaire les sénégalais parce que li xew ci biir kër yi moom la ñuy def te comme comme comme nag Séné mënoo def parce que boo xoolee télénovelas yi ñu doon seetaan euh, euh, kii yu ñeneen la culture ñeneen la mais lii ñuy def léegi tey ñun suñu culture la du ñuy xool te mënoo def benn téléfilm mënoo koo génne gisuloo ne li sénégalais di dund le quotidien des sénégalais moom lay doon waaw macha allah muy rafet loo xamante ni jamono ji sénégalais yëpp ñu ngi ciy kontaan ndax it la waaye aussi jeunesse bi tamit ñu ngi ciy gis sa bopp ndax lu leen occupé la ñu ciy tedd. waaw euh, jeunesse bi ñu ngi ciy gis seen bopp waaye li ma leen di gën a ñaaxaat rek. na rafet. Mm-hmm. nañ ko téyewaat ba mu rafet. joxaat ko gëddaam. Mm-hmm. waaye nag dama cee naw xale yu baree baree bari naw naa ci xale yu baree bari mm-hmm. yoo xam ne comme ni nga tudd ni muy Pape Demba mbir di ko liggéey liggéey bu rafet. ba ba fi ma jógee muy soleil levant xale yi fa nekk tamit dama leen di gis ñu téye ak yeneen xale yi nekk biir Thiès. dama leen di gis ak biir Dakar gii dama leen gis ñu téye bëgg aar bi jox ko fulla jox ko gëdd. te loolu dafa am solo ndax liggéey moom boo ko joxul fulla ak fayda rek deneen la lay jox te nag aar moom du biir day xëy rek wasin mm-hmm. waaw te li nit ñi di wax naan laax la nourrit pas son homme ah man de wax dëgg yàlla loolu moom. duma ko mës a du ko mës a du ko mës a cautionné waaw duma ko mës a la liggéey loo jox fulaam rek fayu ci loo jox fu fulaam ak daam fayu ci ndax foo xoolee tey dama toog sama benn doom mi ngi nii dama koy tudd sama doom mi ngi nii sama wet muy muy muy muy Samira ma jigéen mhm. Mhm. ah euh, man su may joué moom damay am fierté damay am yëg-yëg mhm. bu garaaw a garaaw complicité bu garaaw moo nekk sama digganteeg moom te loolu dafa am solo xam nga loolu fii kan laa koy gisee su may joué ak sumbulu su may joué ak euh, biir soleil levant mhm. mbay doose mhm. su may joué ak ñoom Zozo Cheikh Ndiaye ñoom ainsi suite ak liggéeyam mhm. ñi loolu laa loolu laay gis man dama koy xool ma ne man moom dafa mel ni dafa cheminé woon ak ñun ensemble waaw man moom laay gis si moom te nag li ma koy wax rek nee naa ko euh, jàppal bu daggu rek dina dikk te dikk na sax nag na continuer fi mu teg tànkam fala fulaal na ko fay daal la ko jox na ko gëddaam macha allah mm. macha allah waaye jamono ji dafa am loo xamante ne nag yaay sénégalais namm nañ ko lool boobu ba léegi ñu ngi koy jooy di ko xaar muy le retour de soleil levant euh, soleil levant mm. ndax sénégalais mën nañ amaat euh, bloc bi ñu doon gis xëy gisaataat ko ci kaw seen ah pourquoi pas gars yi namm nañ ko de bien sûr bi ah ngi ñëw de hmm? ñu ngi nit on est en route hmm. incha rabbi ci kàttanu suñu borom. parce que Serigne Babacar si on est en route. groupe bi dafa tasan parce que bu ñuy xoolee gis artiste bi j'ai fii kii j'ai fait kii j'ai fait ba ñi ñooy tête de ñu ngi si yeneen ay production groupe bi tasul. pas du tout Soleil Levant du tas. Soleil Levant li ko jëmbat moo fort ki nga xam ne moo jëmbat solo Levant ay bu ko Sénégal xama am na ñu ko war a xam sax. ki ki jëmbat Soleil Levant. wax nga ma ci tuuti ki nga xam ne moo créé la troupe Soleil Levant de Thiès. Mm. ah kooku du du du du sox dara muy nax saay wax allah te te li ma lay wax rek yàggatul dara mi ngi ci kanam lu si kanam raw li bët. li ngay wax kenn ku nekk ñi ngi dem parce ci et par là c'est normal équipe euh, euh, euh, Souleyman mooy équipe nationale. Ah. yeneen yi club yi la waaw bien sûr. nante la quoi looloo ma neex ci ah. ah mhm. la. club yi dañ maa soxla rek. soxla saa neex ñu dem dóor. bu ñu paree oh, dañuy ñibbi guddi guddi Thiès. <laughs> guddi guddi <laughs> waaw waaw eh, eh. <laughs> uh-huh. macha allah guddi guddi Thiès eh, mi lu am solo waaye comme ni ma koy waxee rek récemment gis nañ ñi nga xamante moo di waa polygame démb ñu woote fële ca Grand Théâtre uh-huh. mu doon événement boo xamante ne sénégalais yëpp kontaan nañ ci waaye aussi li ñuy jox sénégalais sénégalais ñu ngi koy consommer di ci gis seen bopp uh-huh. événement bu mag boobu noonu demb Thiès woote ko naka ngeen ko dundee mais aussi tamit am ñu si mer nag gisuñu si artiste Thiès yu bëri xamuñu nag ko waral waaw waaw ah, macha allah ñu leen di ñaanal rek euh, peut-être muy une réussite. Mhm. muy une réussite totale. Mhm. muy seen muur ah, ndax nag danoo prouver danoo liggéey liggéey nañu liggéey bu set ndax xale yi fa nekk di liggéey mën nañ li ñuy def te nag euh, théâtre sur scène lañ doon def. ah ñoom lool lañ jàng ñoom dès le bas de dès ñu nekk ay xale yu ndaw balaa ñu leen di gis ci téléfilm yi ñoom loolu lañ jàng. loolu lañ jàng moo tax loolu du leen jaaxal man xamoon naa ne dañ fay toj hmm. man xam na xamoon naa ne bu ñu fa demee dañ fay toj ba mu jeex macha allah yal na yàlla barkeel te yal na yàlla indiwaat yeneen spectacle yeneen spectacle hmm. incha allah waaw hmm. waaw léegi nag pour yeneen artiste ah yeneen artistes yi ñëwuñu woon est-ce que nekkuñu ci projet yi temps yi projet yi dafa bari de temps nit ñaan ngi ci tournage yi de loolu laa fa xalaat de nit ñaa ngi ci ruq ci pitinel yi bu ñu nee théâtre ne Thiès mhm. bu ñu comédie ni Thiès mhm. Thiès am spectacle bu mel noonu mhm. ñu jàppoon ne képp kuy artiste dëkk biir Thiès di nga bàyyi sa yëte ñëw soutenir say doomu dëkk gisuñu suñu bëri nag ñu bari nag ñu ngi ciy xalaateelu ne ne ñàkk jiboo wala ñàkk booloo dafa am ci biir artiste Thiès yi pas du tout loolu amul fa Thiès yow ñàkk jiboo dafa am hmm. dëkku dëkku dëkku yii Cees jànqeen benn dëkk ñaari gaar hmm. te dégg naa sax léegi benn ñetti ñetti gaar lay doon Macky Sall moo ko wax ne na daf ñuy defal ñetti gaar njee ñett la ñuy doon <laughs> loolu loolu amu fa hmm. euh, ñun xoolal benn lañu hmm. waaw def si la ak sotti si waaw ña nekk polygame ak ña nekk célibataire ña nekk jànqeen nag ña nekk keppaar geek ñëpp c'est la même famille parce que koo ci gis rek jóge nga fee tourné fee ñee jóge nañ fee tourné fee ñee jóge nañ fee dem fee dem c'est la même famille waaw euh, keroog président ñëw na Sénégal. mais daa mel ni coow am na Thiès. 30 millions yi temps moo lëmbee Thiès. yëg nga ko. non man yëguma ko. Ah. man yëguma ko man nag malheureusement fekkuma fa daf fekkoon maa ngi tournage côté ginnaaw Tamba. waaw man nekkuma fa woon. waaw bi président di ñëw Thiès malheureusement man ndiikuma nekkuma fa. j'ai fait plus de 20 jours foofu bi may ñëw presque xam naa ne raaf na waaw xam naa ne lii sax man ci laa ko dégg. <laughs> lii ci yow laa ko dégg di 30 millions yi ci yow laa ko dégg de ah man de man de ci man de ci yow laa ko dégg ndax man man man nekkuma fa woon gaa nekkuma fa woon dama voyagé woon demoon tournage mm-hmm. benn film long métrage wante nag ah man xaw ma lii de baat bi de si moom laa ko dégg de 30 millions wàcc na Thiès ah coow 30 millions la gars yi di gër kuñ ko kan ak kan lañ ko teg ci loxo ngañ ñi nañ saa neex ci wàllu daal bëri na. kooku nag bul ko kenn tudd saa neex. Mm. ak sëriñ ngañ eh, ñooñ dañoo jub. Mm. ñooñ dañoo jub ñooñ xaas bu tegoon man de bu ma fa nekkulee sax man mii. Mm-hmm. su ma fa nekkuloon te xaas tege si loxo dina ma tegal sama wàll ba ma ñëw jox ma ko. Mm-hmm. waaw maa wax lii su ma nii ma fa nekkulee. Mm-hmm. su doon loolu am na maam Cheikhou Gueye dana tegal Aliya neex dina teg sama wàll ak sëriñ ngañ dina teg sama muy Ablaye Diouf dina teg sama sama wàll. ci séddoo ga ba ma ñëw ndax ñoom duñu séddale dara fàtte ma ñu bëri dañuy waxal xaalis li muy yàq moo ëpp li mais à dañuy faral lu bëri ci malentendu artiste yes lu ci bëri xaalis da koy lal lan mooy problème. waaw la koy wax ñi ñi nga xam ne ñoom la xaalis di kii rek xam nga man li ma lay wax rek sama doom man wóor na yàlla jour bi ñu ma njëkkee fay ñoom saa neex ak zozo bi ñu ma njëkkee fay cachet dama ree ba tëdd ci suuf ndax man booba bi may dugg ci aar. yàlla xam na ne bor ki ma fekk fii muy Lalla mm. Ndiaye mu tante Pape Dem war na fee fekk man école bi ñu jànge ak sama quartier fa laa njëkk commencé def aar dama daan jàng ba wàcc 18 heures ñoom ñëpp ñu ñibbi seen kër man ma dem dugg salle de répétition répété ba timis passé ma doog a ñibbi sama kër parce que amour la woon ci man passion la woon ci man mais xaw ma woon ne dinaa ci dem ba di ci fayee ko ay millions loolu kay defe naa ne yàlla ma ci li naan nag ya daf ma cee fekk kon loo ci fekk nag da doo doylu man de damaa doylu ban damaa doylu ban te xam naa ndax li tax ah am nañ ci am nañ ci liñ ci war a am de. am nañ ci liñ ci war a am ndaxte nag kaay ma wax la xam nga fi gën a sori xam nga fan moo gën a sori. Mhm. ku ne la ku ne la ku tukki naa. Mhm. nekk ko yonent baa ngi lay nuyu. Mhm. ku ne la tukki naa tukki bi sori. ne ko bi yaa lay nuyu. te man aar yóbbu na ma ci yonent bi ñaari yoon sallallahu alayhi wa sallam. <laughs> yóbbu na ma yàlla. sallallahu alayhi wa sallam ñaari yoon ndax man aj na ajal naa sama bopp macha allah. ajal sama yaay. njaay jaata yal na ko fi yàlla bàyyi ah wëral gën a wëral cërëm yi ajal sama papa hmm. te loolu yëpp aar moo ma ko def aara ma ko def hmm. kon kay nag hmm. yow fan moo gën a neex màkka moom la ti jullit bu ne moom lay rêvé kon kay aar aar kay kon kay aar man nag nag nag nag nag defal na ma lu ma war lu neex leneen li nag kaay ma wax la nga laaj ko ñi nga xam ne ñoom la animé man san manin paa <laughs> nante la bi ñu wër meer ndante kan. seen soirée bi. soi <laughs> non siin laa koy laaj siin ndey siin ak Bella Sène ñooñu laay laaj soirée bi <laughs> Fadam dégg naa ne moom eh, moom mi ngi si ak ñooñu. <laughs> bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo. ak Binta Sam def naa ñoom ñooy dox affaire bi. yàlla bu mujjee ay xeex laay ragal. ah man. ñu pànk rek a fa nar a organiser soir. macha allah macha allah maa gën a kontaan mm-hmm. euh, de pachage nag may gërëm li nga xam ne ñoo tax ñu dajaloo ba xamante mm-hmm. muy muy muy waa waa Marodi mm-hmm, ah plus particulièrement le PDG Mass nduur ak la sunu nga xam ne mooy euh, la réalisatrice muy Adja Ndour Adja Ndour euh, lii lépp ñoom la ndax nee naa bu fekkuloon ne ñoom ñoo ñu xamale may ñu bo xel dal ak xel teey ba liggéey liggéey bu rafet ba àndandoo lii du am. en prise defe naa ne mi ngi jeex depuis mois d' avril daaw. 2022 2022 2022 avril 2022 la jeex. Mhm. on est en 2023. Mhm. ah bientôt avril on est en février 2023. Mhm. kon te ba léegi lien bi lien yi mi ngi fi. lien yi ñu tiisee woon mi ngi fi ndax looloo looloo ñu indi fii ci mariage Pape Demba. te xale yi ñëpp ñëw. yéen gis nga ko xale yi ñëpp a ñëw kon ma xam ne nag ñoom tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm may ñaanal nag de passage bu ñu fi jógee dimanche bii di ñëw nan takk sama doom ji ndax man damaa pare ndax damaa bëgg a toj Dakar eh. sama doom ji ma jigéen dama bëgg ñu takk ko eh. damaa pare dama toj Dakar